xamante ne ni ñoo fas yéene bokk ci 15e législature bi ak euh, bu dee ci côté politique Benno Bokk Yaakaar ak division bi nga xamante ne ni euh, am na fa mun nañ jàpp ne euh, tey bu ñu ñëwee Pastef mun nañu am benn majorité boo xamante ne ni gëjoon na assemblée. waaw instant suñ toll nii moom bon bu dee Benno Bokk Yaakaar ñoom amatul. donc APR. ñoom ñoo war a defaraat seen partie mm-hmm. Amadou Ba. mi ngi ci tànku créer parti boppam. donc ñooñu la ñuy peut-être ñooñu day nekk euh, seen première épreuve. élection yi di ñëw. bu dee Pastef la. ñoom naka la ñuy def ba ab majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Euh, loolu moom mooy jeu bi nga xamante ni moo ubbeekuwaat maanaam daal lu ma ci mën a jànge man mooy. Mm-hmm. renouvellement renouvellement bi nga xamante ni moom la Sénégalais yi defoon. Mm-hmm. Euh, ci élection yi passé lii mooy suite bu logique bi. Mm-hmm. et puis bon soxla nañu aussi euh, opposant opposition de qualité. Mm-hmm. bu am niveau quoi soxla nañ opposition bu am niveau soxla nañ ay député yu am niveau. au niveau de l'Assemblée yoo xamante ne dañuy respecter seen liggéey. Mm-hmm. respecter aussi Sénégalais yi quoi. donc euh, occasion boobu euh, la ñu la ñu lii di permettre ko je pense que ñuy def acteurs politique yi. ils sont conscients de ça l'état est conscient de ça donc fi mu toll nii boobu ci nekk wàcc si bi jéem a xool nooy def ba gagner gagner gagner gagner gagner confiance su sénégalais yi quoi loolu moom lañ fi. Euh, Pastef ni muy demee ak yeewi bi nga xamante ne ni peut-être euh, moom la ñu duggee woon assemblée. Ah, yooyu amatul yeewi askan wi amatul. waaye amatul mais loolu aussi du impacter euh, ci. kii Pastef même bu fekkee ne am nañu majorité ci présidentielle bi ñu jógee. yeewu askan wi Pastef moo ko yoroon yeewu askan wi Pastef moom moo ko yoroon moo doon doole doole yeewu askan wi te yeewu askan wi bu ñu ko doon wax muy pôle yi la woon muy taxawu Dakar la woon ak ak ak ak Pastef taxawu gis nga déplacé nañu ak ak Pastef bu yàgg donc li nga xamante ni ñoom tamit occasion la ñoom it pour ñu mën a xam taxawu dëgg dëgg xam nga ñoom taxawu jamono la mi ngi am ay cadre yu génn ci seen ci parti bi mm-hmm. occasion la aussi pour ñu xam Khalifa Sall parce que foofu tamit il y a des non ak cadre yi génn ak Bart lan la nar. yooyu yëpp euh, maanaam lii daal dina feeñal lu bëree bari bari bari bari et puis dinañu permettre que. Mhm. Euh, euh, titulaires yi demoon élection yi passé. Mhm. borom zéro virgule yi <laughs> ah mais c'est vrai pour ñu mën a. nattaat seen bopp parce que mën nañu mënoon nañu jàpp ne élection présidentielle yi passé mm-hmm. population bi référendum lañu doon def Macky Sall lañ doon bëgg mu dem moo tax bëgguñu woon ñàkk seen i vote mm-hmm. mais instance yu ñu toll nii peut-être que avec euh, parlement bi mm. population bi dinañu raisonner xool yan député la ñu bëgg ñu ñu ñu ñu ñu voté leen. Mhm. tu vois euh, ñu ñu représenté leen assemblée. donc dina nekk une une forme de test. pour leader politique yëpp ku ci nekk nataat sa bopp ko mhm. parce que fi mu nii booy xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci chaîne politique bi sonal nit ñu lu ci demee ne ay Bougane ay Thierno Bocoum ak yooyu. Mhm. comprendre nga dinañ am occasion pour ñoom ñu na xam nga Bougane mosul dem élection. tu vois <laughs> dina ko permettre mu mën a natt boppam Thierno Bocoum dana leen permettre ñoom ñëpp ñu mën a natt seen bopp ñu xool ban forme de opposition la ñuy am ak ku nekk lan ngay peese je pense que configuration chaîne politique bi dina lool foofu lay intéressant quand même te mm. su boobaa tamit Pastef dina ko gën a permettre aussi mm-hmm. mu gën a nataat dooleem dëgg dëgg ci population bi nu mu demee ko mm-hmm. loolu lañ ci man bon côté positif boobu laa ci jàng quoi euh, Ousmane Sonko comme tête de liste ñu ngi koy évoquer xanaa après day bàyyi premier ministre bi dem après nekk ah, nekk nekk président de l' assemblée ah, nationale. de l' état. Mm. loolu yàqul dara loolu mm. campagne la rek. Mm. après bu ñu war a installé moom mooy. en tout cas tànn benn mu démissionné wala mu. mu continuer en tout cas c' non loolu c' est politiquement. la. politiquement amul lu ko gën. Mhm. c'est-à-dire que tey si Ousmane Sonko jiite trou bi. Mhm. mobilisé mais mhm. mooy gën a yomb pour keneen jiite ko. mooy gën a yomb ko xam nga koo xamante ni bokkuloo ci xew mi. xew jàmbur ngay yëngal sa xew kay da war a <laughs> jiite. ah mais Mimi gis nga également au mbetteel nag. <laughs> <laughs> ah. man gëm naa ne moom nekk jiite tel liste moom vraiment. c'est pour la forme après am suppléant. y a des choses yoo xam ne. waaw ah mm-hmm. waaw mais man may analyste. di càmbar. ah man aussi waaw mais mais yow yow li nga xam a bari. ba de façon ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko moom moom bête politique la. moom si terrain bi moom vraiment. il est il est efficace. je je pense que comme moo fi doon fal ay député fal fi ay maire. ñi ah ñi fi nekk député yëpp moom moo leen fal. ñi fi nekk maire moom moo leen fal. Mm-hmm. su boobaa moom bu wàccee gars yi duñ doy. te xam nga Ousmane Sonko rek bon yàlla may na ko loo xamante ni. te calculement à moo moo gën a kii ci moom quoi. Hmm. non non Ousmane Sonko hmm. de président assemblée mënul nekk. loolu hmm. moom xalaatuñu ko sax. loolu loolu loolu loolu sa genre yi di kii di dugal yooyu yow yow yow xam nga gars yi naan ñiy wax naan Diomaye ak Sonko dañ doon xeex ak. wala fi ne nii àndatuñoo yow ci catégorie. donc c' est pas c' est pas c' est pas c' est pas. moom loolu la taxoon di wax de. comme Sonko dem ensemble lay wax de. moom loolu la doon wax de yow rek yow ci campagne bi ngay wax yàgg ci parce que da ngeen am xel. Oh, oh. mais moom fonk ensemble la doon wax moom. pourquoi mu bëgg Sonko dem assemblée. jaxase. dëgg saytaane. Hmm? nekk deuxième personnalité. saytaane xamoo dara. y a passé à côté. de loin même. ah yow toppal fële. Hmm. ñëwal ci euh, configuration. de façon man cohabitation bi nga xamante ne sax. Ah, waaw déglul Fatou. Fatou bu jële parole da ngay noppi <laughs> wala dañuy noppi. man bu ma sañoon sax dañuy anticiper waa les mêmes maires yi euh, ah. mais maire maire xaw ma ndax. 2027 non non non non mhm. ci lay jeex. voilà ci cohabitation bi ñuy wax à l'Assemblée nationale. mën naa am ah. mhm. lan noo ko yawale ñi nekk seen yow mandat présidentiel mën nga ko changer. Ah, ah déet amul amul amul eh, délégation bu ko dafa am lu koy waral nag. ah, ah déet. yaa ngi liggéey normal ñu délégation ne pouvoir. mandat bi cinq ans la. ginnaaw gay xasan daa namm dóori ah, Macky Sall yi maanaam li ñu Macky Sall doon def <laughs> moom yooyu la namm dañu dañoo am président bu démocrate bokk ñoo ñëw. mais stabiliser aussi di violer loi loolu mu ne. mais stabiliser fa mu nekk na fa nekk. 2025 na fa nekk ki ne yow ñu la falee cinq ans ngay doxal. léegi nga teg ko fan bëgg nga dindi ko. parce que Macky Sall dàq na ko ñaari yoon rek. ñu couplé les élections. délégation spéciale. Euh, c'est kii Fatou di ko dégg. <laughs> bëgg mu jàppale ci li fii la taxaw naan Thioune jot na message di ko wax léegi yow. Ah, vraiment man dama ah, tiit. man su may lire message. Oh. bi mu ko waxee man dama tiit sax. Euh, Abdourahmane ruube baax na mais da ngay ruube ruube. Abdourahmane xam na ne mu ngi war a fay gars yi ay milliards. 9 mm. milliards la ñu yore. dañu mm. fay nag. non loolu moom danañ loolu nañ ci jóg ah. voilà saa ñëwal ci cohabitation bi bon damay njëkk wax ci cuun fi mu daaneele parce que li ma ko doon wax euh, pyramide de normes lu am la parce que loolu loo tax sax conseil constitutionnel ci boppam moom moo habilité xam nga dama ko wax mais président Diomaye. su bëggoon a def politique politicien bu bon bi ñu koy waxal. loolu mënoon naa yomb ci moom. bi ko gars yi opposition bëgg a giñ noonu. amoon na lu gënoon a yomb. xëy rek maanaam euh, quinze euh, onze août. xam nga entre dafa am ñetti categorie ci ñi am ku ci nekk lu ñu jàpp donte man après li conseil constitutionnel jàpp la mujj naa nangu ne moo gën a logique. Mm-hmm. parce que date l'installation. Mm-hmm. kon bu ñuy désinstaller ci boobu lañ war a jàpp. Mhm. mais dafa am ñoo xam ne dañu jàppoon ne euh, après l' élection muy buñ voté ba ca ba ba noppi rek man ma bokk ci groupe bi jàpp ne jàpp ma boobu waaye bi ci digg bi laa jàpp muy après la proclamation définitive